te lu ko waral tanazalul malaayikatu war ruux lii ngëneel lii may laylatul xadar daraja jooju mooy wàcc gi nga xam ne jibril dana ca wàcc ak malaaka yi su fekkee ni loolu la nag laylatul xadar ci wàcc ak jibril ak malaayika yi laylatul mawlidi ki nga xam ne ci la yonent bi wàccoon moom mi nga xam ne mooy sangab jibril ak malaaka yi kon buñ ne moo ëpp daraja moo ëpp ngëneel nangu nañ ko beneen laaj dana ci juddu mooy laylatul qadar alquran yaxal na nga yeelal mawlidi alquran tudd ko fenn laylatul qadar su fekkoon yàlla waxul ngëneelam ci alquran kenn du ko xam te kenn du ko jàpp muy dara moo tax yàlla feeñal ngëneelam laylatul mawlidi nag lu nit gëmm gëmm su ci yàlla noppee nga xam ne guddi gi yàlla tànn بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي لي أي لاجلة أكي كشون تي كيبو كو خمنا داغي داغانا الغام لو سيديكو موي صلو بيان جوخ غامو باني مو غن ليلة القدر كم نكو سن سيريني دي وخي pourtant laylatul qadr yonent bi salaa salaam leeral na solo bi nee na man qaama laylatul qadri imaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zambi ku taxawee laylatul qadr yàlla jéggal ko la wees ci ay bakkaaram comme yonent bi salaa salaam li ngeen ne moo gën li ngeen ne moom la ñu gën leeral na ko muy laylatul qadr naka lay leeralee njëriñu laylatul qadr ak soloom ba pare bàyyi gàmm bi nga xam ni nee ngeen moom moo gën laylatul qadr loolu est-ce que xel nangu ko te yonent bi sallallahu amul dara lu ma war a leeral lu leeral naa ko taraktukum ala mahajjatil bayda amul dara lu war a leeral lu dul koo leeral comme solo boobu ngeen jox gàmm bu fekkoon àgg na fa yonent bi sallallahu dina ko leeral beneen bi mooy yonent bi sallallahu solo bi ngeen jox gàmm ak dayoo bi ngeen ko jox beneen ne moo gën laylatul qadr waa lan moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi balaa mu fiy jógee leeralul préciser wul bis bi nga xam ne ci la judd ba ginnaaw boroom xam-xam yi di wuute ñi naan douze rabiul awal la judd ñi naan neuf ñi naan dix ñi naan huit ila axirihi ba tey jii boroom xam-xam yi dëppoo wuñu ci bis bi nga xam ne ci la judd ba tey jii amul dara lu authentique ci chaîne boroom xam-xam dëppoo ci bokk ne douze rabiul awal la judd naka ngeen di fekkee koo xamante ni dañoo wuute ci bisu juddoom ngeen tànn benn bis rek ne moom la ngeen bàyyi yeneen bis yi nga xam dañ cee wuute ñetteel bi mooy yonent bi salaa sallam ba mu fi jógee dafa ne na ngeen tënku ci sunna ñeenti xalifa yi Aboubacar Omar Ousmane Ali ñeenti xalifa yi ñoo ñu gën a xam diine gën ñoo bëgg yonente bi bu fekkee gàmm solo boobu am na ko lan moo tax ñeenti xalifa yi kenn ci ñoom gàmmuwul du Aboubacar du Omar du Ousmane du Ali non seulement gàmmuñu noo seulement diglewuñ beneen bi mooy ginnaaw ñeenti xalifa yi ña des ci saxaaba yi ñoo leen gën a xam diine gën koo xam seeni sëriñ gën koo comprendre kenn su ñoom gàmmuwul kenn su ñoom musu koo digle ginnaaw ñi ñeenti école yi nga xam ne mboole mi jullite adduna bi ci la ñuy dellu muy Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad ñeenti école yi kenn mus cee gàmm kenn musu koo digle kenn musu koo bind kenn musu koo bind beneen question bi mooy lu tax ngeen jox solo bis bu mu judd bàyyi solo bis buñ ko yónnee te bis bu ñu yónnee yonente bi salaa sallam yàlla jox na ko solo ci alquran mu ne laqad manna allahu ala almuminina ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim yàlla dafa xéwalee jullit ñi daf leen defal ay xéwal kañ ba mu yónnee am yonente ci ñoom comme yàlla tudd na soleil bis ba ñu yónnee yonente bi waaye tuddul soleil bis ba mu juddoo lan moo tax bis ba ñu ko yónnee màggaloo leen ko beneen question bi mooy yonente salaa sallam bis bu mu juddoo ci la faatoo waaw lu ngeen di feete bis bu mu juddoo ngeen bàyyi bis bu mu lu waral beneen question bi mooy nee nga yonente bi salaa sallam bisu altine lañ ko laaj motax tax wor mune parce que ci la judd lan motax tax gàmm woo chaque altiné ngén jappal ko chaque at parce que judd altiné ça veut pas dire que 12 la judd mune na judd altine fekk du 12 rabiul awul la judd lan motax tax gàmm woo chaque altiné té lu ci gëna doy war boy da daka gàmm xam ngeen napoleon bernabert arabe non lañ koy waxé peut être français amna benen tour tur napoleon bernabert mo amalo révolution française bi moom dafa financé alal bu bari ginnaaw bi nga xam ne moom da doon xeex lislaam màbb na ay jàkk jamono yu màbb ay jàkk jamono yu muy xeex lislaam jamono jooju la finance pour ñu amal gàmm pour ñi nga xam ne dañuy gàmm màggal juddu yonente bi ndax loolu màggal juddu loolu ci mbiru yéefari la moo tax ba mu gisee jullit ñi di ko def da kontaan mu daal di koy financé comme question yi ñu leen di laaj bu fekkee amoon ngeen ko tontu ngeen tontu ñu si. Insyaallah, te yaakar na fi ba jant bi du so di eh, di penku la ko amal tontu insyaallah. barakallahu fikum ok dawat yow da nga indi da nga tek taj fa la teg ni gàmmu moo gën leen xar nga dem jëli ben téré bu kenn xamul nga dem borom téré bobu nee gamu mo gën ma ok borom téré fa la ko tek ane argument nga ne non amul argument yow ya koy indil argument yow ok nga tourner tontu wo sama laaj nga laajam ma tontu wo mais amé laajar laajaat ma la garaaw tontu nga laaj ma fa la tek ni lailatul qadr mo gën gam ma alquran yàlla dafa jagleel laylatul qadr ab saar spécial ab saar spécial lolay ben ñaaral bi saar bu ko spécial mu tudd ci mu ne laylatul qadri xayrun min alfi shahri moo gën ku jaamu yàlla junni weer ñaari ngeen la ngi noonu ci laylatul qadri benn yàlla ko tuddee saar sama toogu ma pour di la déglu sa jël minute yu ndaw boo paree nga jox ma waaw ma laaj yaa ma laaj nga mais boo indee ba pare mais pareegu mais pareegu pareegu ma jeexalagu ma bu yàkkam bi yaa ma laaj nana laylatul qadri gënee gàmm ana dalil bi ma indila la dalil ma ne leetu xadri yàlla ko tuddee saar loolu ndawul lu yàlla tuddee saar ndawul gàmmu yàlla tuddeewu ko saar ñaareel bi ma ne la leetu xadri yàlla nee na ko taxawee xayrun min alfi shahri moo gën ko jaamu yàlla junni weer ñetteel bi leetu xadri nee na tanazzalul malaikatu war ruuxu fiiha malaaka yi dañuy wàcc ànd ak am nga ñetti ngeenel ci lailatul qadri ci alquran ma dem ci hadis mo ne la hadis ba neena man qama lailatul qadri wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi ku taxawé lailatul qadr and ak jaamu yalla toroxlu and ak gëm yàlla kooku yalla jéggal na ko ay bakkaaram léegi ngeenel yi ni ñëw ci laylatul qadr alquran ak sunna indil ma ngëneel ya mel noonu ci gàmmu ci alquran ak sunna comme nu la ko indilee ma ne la gàmmu bii nga ne moo gën leetul xadr yonente bi nee na waaw léegi daa baax na dégg naa la li nga indi gàmmu bii gàmmu bii nga ne moo gën leetul xadr yonente bi salaa sallam nee na la gàmmu boobu bidaa la yonente bi nee na wa iyaakum wa muxdasaatul umuur na ngeen moytu mbir yu ñu sos bu ñëwagum ci bidaa mu ne fa inna kulla muxdasatin bidaa lépp luy sos bidaa léegi bu ñu demee xool gàmmu ba ñu demee xool gàmmu dañoo gis ne nag dafa bokk ci mbir ñu sos yonente bi jëfee ko benn saxaaba musu koo jëfee. d' accord naa mais bu ñu ñëw. foofu la teg waa xaaral xaaral xaaral xaaral. fii laa teg non yow fi ngeen ma laaj. ah déglu ma déglu ma déglu ma fii laa la indil aaya alxuraan bu leer boo xam dafa tudd ne layla tudd laylatul qadri aaya bu la indil yëpp daa tudd laylatul qadri laylatul qadri xayrun si yéen a may dégg indil ma ci alxuraan fu yàlla tuddee laylatul mawlidi comme nu mu tuddee laylatul qadri benn aaya laa soxla indi ma benn aaya bu tudd laylatul mawlidi bu tudd déglu ma maa bëgg mu leer gaa yi dama bëgg naa la amul problème léegi tëjee sa micro bi gaa yi tëjee sa bu tudd laylatul qadri yéen ñëpp bokk ak yéen waa d'accord léegi tëjee sa micro nga déglu ma lu mu fu tuddee ci alxuraan guddib laylatul mawlidi comme nous, ma ko tuddalee guddi qadri ah.